du suñ coobare waaye jamono ju nekk nag suñu xel mi ngi ci fu ma toll tamit maa ngi ci digganteeg kilifa yi ku mel ni sëñ Moor Juuf ba ci sëñ Baxaw mii di leen ziar bu baax a baax di leen mbokke ndokkeel ci xasida yu tedd yi nga xam ne nii ci ngeen jóge nii di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu defal nu tawféex ba ñu yàgg ko ba yàgg koo yëkkati yàgg cee gërëmloo sëriñ bi yàgg cee bégloo yónnent bi sallallahu alayhi wa ndax moom kat dafa doon loo xam ne nii liñ naa li sëriñ bi naa walla naa fii say un lam nu xasida yi danu cee am loo xam ne nii bokkuñu ko keneen ndax sa kilifa defal la loo xam ne saa yoo ko yëkkatee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo koy bind mu bég boo koy jàng mu bég wa farrix biha rasulallahi sallallahu taala alayhi aw kutibat aw nuzira ilayha ak wa xayrul baraya wa xayrul wara yanxu bil basmi mu ne saa yu may takk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day jàkkaarloo moom ci di muuñ ne dem na ba ci mujjug dundam sax mënatute bind leneen lu dut xasida mënatute bind saafara ndax saa yu jëlee xalimaam nam bind lu mel ni saafara yonent bi sallallahu alayhi wa dikk tàmbalee muuñ jàpp ne dama koy tagg ma far ko jëme ci moom kon loolu képp koo xam ne def nga ko mu di sab yëngu muy sa yitte na ne yaa ngi ci tëju am solo xam naa waxtu wi sax xaw naa gàtt suñ moor mi ngi ma ko doon wax fan yi laj na bi nga xam ne nii moo yore wàllum culture bi dañ ci doon waxtaan Serigne jay mii bokkoon na ci ñi ci doon joxe xelaat ne buñ mënoon a waxtaane ci xam-xam waaye ginnaaw bi tamit am kàddu yu fa jib ne lu jëm ci wàllu hadiya tamit buñ ci mënee waxtaan dana baax ndax defe naa jamono ji daayira bi ñu ngi waaj def waajtaayu ziyaar ak hadiya waaye ñu xam ne loolu génnut li Serigne Jay joxoñan ba léegi muy xam-xam rek ndax fii moom lu fi man di waxtaane génnul xam-xam hadiya nag bokk ci li nga xam ne nii dafa tënk ab murit ni sëriñ bi waxe woon ne gaa yu baax yi nga xam ne nii dañoo am ab cir ci yàlla képp koo xam ne nii liggéeyal nga leen texe ñeel na leen ñeel na la mel na ñu ne ko looleen noo leen di liggéeyale wala noo leen di gërëmloo mu ne bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati liggéeyal leen wala nga bëgg leen walla nga joxe hadiya loolu nag ñett yooyu yëpp ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi daan tarbiya di leen yar ñett yooyu yëpp la daa boole di leen ko defloo ñu àgg ci yàlla laq ngërëmal suñu boroom nga xam ne kon hadiya ci digg digg boo dee xool cosaan li li nga xam ne nii mooy jubluwaayam mooy nangu xiiwal ak sunu boroom goo xam ne nii defal na ko jaam bi firndeele ko ci jëf nag joo xam ne nii jaam bi da koy jëf ndax yaa ayuha allazina amanu isa naajaytumu rasulu rasula fa qaddimu bayna yaday najweekum sadaqaat yéen ñi nga xam ne da ngeen gëm yàlla ak yónnenteem bu ngeen deetee deeyaaleeg yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam na ngeen jiital joxe hadiya mu ngeen jiital joxe hadiya zalikum xayrun lakum ak donte sax euh, tegaat na ci aas faqtumu an tuqaddimu bayna yaday najweekum sadaqaat boobu nga xam ne lenn ci boroom xam-xam ne man suuxal na loolu waaye téewut am na loo xam ne nii woyafal rekk la la ci jublu ak yërmande waaye ku xam lu yàlla xam ne ku toll ni yónnent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci li rafet mooy boo demee ba di ko diis sa soxla walla nga am ci moom aajo nga yoraale dara muy addiya nga addiyal ko ko loolu nag topp ñi nga xam ne nii doon nan ko ginnaawam ñu doon yonent bi sallallahu alayhi ci ginnaawam bokk ca ñooñee ko doon Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu doon na ko zahir ak baatin kon xadiya bokk na ci jubluwaayam xam ne naar bi moo fi indi xoromam xorom si naar bi moo fi indi xorom si waaye kan koy jox daanaka mën naa doyewu ko dara ndax moom àdduna soxal ko ndax koo xam ne àdduna dal doon sàkku di la topp ngay daw fu àdduna aw nga aw fa ca des kooku amul soxla ci àdduna ki nga xam ne waxan na ne lépp loo xam ne nii jublu naa ko wala ma di ko sàkku ci àdduna ji xamal ne du bëgg leen ni àddinaa tax waaye ab yóbbal te bokk na ci liy firndeel ne nangul nga nit ak suñu borom nangoo dajale saw ñaq jox ko ko muy hadiya kon buñ deman wala yaasu billaahi ba kenn nanguut te joxe addiya walla las daan joxe addiya di gën di manqué di gën di wàññi loolu manees naa ñaaw njortu ne mën nañoo dem ba jëmmi jamono lay xew ca beneen yeneen béréb ya di fi xew ndax naar bi kat dañoo séeree tudd ne moom moo fi indi xorom si waaw ndax wolof buy wax loolu ne xamal ne naar bi moo fi indi xorom si jëmmi xam gi jariñu dara naar bi waaye nag cant la ci xeeti cant yi ala kulli xaalin kon war nañ ci góorlu gépp góor góorlu waaye nag foofu dañ fi waxaat di laajaat lan mooy addiya ak nan lañuy ñuy joxee addiya ndax addiya ah, doonut loo xam ne nii farata la doonut loo xam ne nii force la doonut loo xam ne nii tamit bariwaay waaye ba itteel na kañ koy jox ak niiwaay ba bàyyi waay ba ak niiwaay baa ci yem bu dee sëriñ bu mat sëriñ la loolu mën nañ ci indi ay firnde yu bari bari ci jamonoy sëriñ bi am na koo xam ne mas naa indi addiye yut ko seex ahmadul xadim xaadalahu llahu maxtaaralahu nettali bi sëriñ alxaaji mbàkke moo ko nettali mu ne def ko ci mbuus jox ko sëriñ bi mu ne ko tegal foofu léegi nag ki nga xam ni moo indi àddiye ji daal ne sëriñ bi ab junni la de sëriñ bi ne ko yàlla sun boroom xam na li mu doon foofu kon sëriñ alxaaji mbàkke daal di def commentaire ne da koy jàngal sellal da koy jàngal sellal dina ko jàngalaale kon addiya li tax léegi ma wax ne kiñ koy jox daanaka amalu ko benn njariñ wala njariñ li lépp lépp ëpp ci yow lay dellusiwaat kon di nga ko dégge foofu am na kenn ci mag ñi tamit mas naa bay mbay mu baree baree bari defar ko ba mu àgg di yët ko di ko yët Cheikh Ahmadul Xadim xaadalahu llahu maxtaaralahu ànd ak kenn ci fere yi ne ko nga gunge ma bi mu demee yët ko xaddee ji sëriñ bi ne ko faggul nañ la ci nangam ak nangam nga xam ne faggul na leen ci lu réy a réy kookee nag daldi tàmbali cee gis boppam ndax xam na ni lii lépp moo ko liggéey kii da ko doon gunge dong fekk nag sëriñ bi moom suñ boroom da koy yër loolu ci xol yi mu ne ko ndax mokkal nga suurtu samsi mu ne ko waaw mu ne ko taril ma ko mu tari ba ca isin baasa asqaaha ah, ba ci faaqaruha faaqaruha jooj surat sam tam samsi mu daal ne ko taxawal waaw googu lu muy junj mu ne ko waaye mbooloo ndax fa aqaruha mooy ñu loj naaga ga yonent yàlla saale dafa suñu borom da ko di xam ak kéemaan goo xam ne ak naaga la goo xam ne giléem la gu yéeme goo xam ne nii bii bis mooy aye naan te bu ayee naan bis boobu waa dëkk ba ñu am luñ naan ndax ndox mi moo koy naan beneen bis ba nag moom mu bàyyi waa dëkk ba naan ak maadoom toll na ci bis ba mu ayewut moom du naan waaye bis ba mu aye moom ndox mi moo koy naan leen sonalee ñu weddi ko biñ ko weddee kenn ci ñoom ka gën a texee di dem loj giléem nga xam ne ba muy ga sax moom ñoom yebaluñ ko moom moo demal boppam yebal ko ci firndeeli alquran wax is in baasa ndax in baasa moo yeblu na yeblu nag bokkut ak ñu yebal la moom moo dem lojal boppam giléem ga te teewut ba ko yàlla di alak mbooleem dëkk ba la boole alak ñoom ñëpp ñu ko weddi mu ne ko loolu mooy misaalam sa hàddiya ji yaa ko jëf de waaye nag kii nga àndal xolam sedd na ci ñëw na ànd ak yow gunge la kon fay gi yéen a koy bokk bokk na ci tamit am na sunu jenn nijaay ju nu mas nettali ci jamonoy Sëriñ Saalihu Mbakke radiyallahu anhu mu ne am na daayira boo xam ne waxan na ma sax turu daayira ba ne mas na noo yoon indi haddiyee indil Serigne Saliou addiyee ju baree baree bari yoo xam ne dañ koo jal ci kanamam biye yéeg weccet yéeg lépp ne ne loolu moom moo ko fekkee biñ ko jalee ci kanamam bant la jël di ko jeexee ndax Serigne Saliou ni sëriñ bi daa def da ko daa def boo ko joxee xaalis mu ne tegal foofu ndax ñun ñii sax mas nañoo jóge xel koom booba ay tuut tànk lan ñëw di ko siyaare këram ku ne ñaar fukk ya nga yor ak juróom bu ñu ko joxee dañ leen teg leen foofu ñu seet bin seetlu bin bin bin wàccee xaalis bi da doon róodu ci suuf si ndax suuf si foofu ni daan nooyee ñuy jëlaat di ko jox mu ne teg leen ñu wàcc mu dugg ci suuf si ah, waaye at daayira bii nii bi nga xamee ne indi nañ hadiya andil ko sëriñ bi sëñ Saalihu sama nijaay jooju ne ne bant la jëloon di ko jeexe di jeex mel ni am lu muy wër di jeex xaalis bi di jeex di jeex di jeex ba gisab dërëm yëkkati dërëm bi daal ne dërëm bii de la ca boroom daj Sëriñ Tuubaa rek rekk moo ko jaral mu yëkkati ko joxe ko daal jël dërëm boobu yépp ko ci poosam daal di jóg dem foofu tamit li nga fi mën a déggee mooy addiyee jëmmi sell gi moo ci it moo ci solo si waaye du jëmmi baruwaay bi hadiya li ma wax léegi ne buñ demoon wala yaasu billaahi ba nungootuñ koo joxe nga xam ne ni joxeetuñu hadiya maanaam dina ñaaw njortu ci ne lay xew feneen dina dina xew fii tabu boobaa tamit li ko waral ñu xam nañ ko naka noonu tamit buñ demee ba jëmmi jamono tamit ñuy seet ci diw de ba muy yóbbu àddiya diw ñoom ba ñuy yóbbu àddiya nangam lañ yóbboon ba tax ngay njëkkalante ba tax nga tegoo loo wër ta tegoo walla nga teg nit ñi loo wër ta teg bu boobaa tamit atte bële mook atte bi yem ndax yàlla lu sell bëgg ko kon addiya deesu ci tegoo loo mën deesu ci tege tamit lus mën naxam am mën naa warlu ne warlu naa nangam waaye bu demee ba ci biir jamonoy warlu ja xool mënu ko du force day joxe lam man kon foofu ñu xame ci ne mbir mu ne la ca sell rek la yàlla bëgg moom la taamu waaye lu bari la itteelu ko tey jii daayira bi nga xam ne mooy fédération Safinatul Amaan tey jii bu àndan ànd ak làmbaay gépp dem yóbbu hadiya taxu ko bari sax waaye sell na loolu moo nu ëppal njariñ te mooy njariñ la ñu yóbbu lu dul jeex loo xam ne nii média yi wax nañ ko esthétique yi esthétique ko ñu ne diw ñoom yóbbu na nàngam te sellu ñuy bàyyiwaale loolu xel kon bu baax a baax am na daayira boo xam ne nii ab daayira la sax boo xam ne bokk na ci daayira bi nga xam ne yii daayira bii ëmb na ko ndax ci daayiraay làmbaay yi la ñoom mas nañoo yóbbu addiya yut ko Serigne Salih Mbacké muy seen njaal benn ak addiya te ñoom daayira boobee boobu ay tuut tànk la xam naa nekk gi nekk tuut tànk sax moo tax ñu am fitu def loola dëgg la addiye bi ñu koy dajale dajal nañ ko lu war a mat at wala lu ko jege biñ ko dajalee doonut lu du ñeenti junni ñoom ñu ne dañ koy yot yót sëñ Saaliw àndandoo dem yóbbul ko ko ban demee neneen daayira booba fekk nañu fa daayira bu mag a mag boo xam ne bàyyi ko na Dakar nga xam ne seen addiya gaal lañ ko def bañ ko indee ñoom xawuñoo mën a àgg sax ci sëñ bi ndax dooley daayira boobu waaye biñ indee ñoom addiya daayira bu mag boobu seen addiya sëriñ bi dafa wax ñu teg ko noonu mu tege waaye daayira bii ma lay wax nii bi ñu yëkkatee seen leetar boobee ñeenti junni ak ñatt téeméer ne ca ñu jox ko sëriñ bi sëriñ bi dafa ubbi leetar bi di ko wàññi fekk booba ay billet yu sew la wàññi ko ba àgg ànd ak muuñ dugal ko ci poosam foofu lan nga fi jànge ak sell ndax itte jam jox ñooñee jox na ko boroom gaal ak xaalis googu déedéet joxu leen ko kon nañ góor góorlu ci addiye bu baax a baax a baax waaye nag ak di ko sellal bu mu nu yóbbaale mukk ñu ne ñoom diw sàngam yóbboon nañ seen addiye te nàngam la tool bu nu yóbbaale mukk tamit ñu ne dinañ dégg riiram waa Lambaay fédération Lambaay nga yóbbu addiya war nañoo mën a yor nangam nangam nangam déedéet ndax lu sellut yàlla bëgg ko ah, xam naa mën naa gën a yaatu sax waaye insha allah ñu taxawlu foofu rekk waaye ci gàttal daal addiya moom doon na loo xam ne nii moo ko murit ñoo taqaloo ñoo taqoo saa yu ay murit demee ba seet bi ci seen bopp ne maanaam ñoom ñii niiw nañ doole maanaam maanaam doyadi nañ ci joxe addiya te dara tegu leen ko lu seen ñàkk positif nañ xoolaat seen bopp te soññaat seen bopp te ànd ak tiitaange te xam ne ñi ngi jëm ci loo xam ne dansé la waaye nag saa yuñ demee bay joxe ci addiya di bàyyi xel ñay sinebak ñoom diw sàngam yóbbu na nàngam ay na tollu nii nañ xoolaat seen bopp tamit te xam ne lu sellut yàlla bëgg ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene ko fas yéene liggéey liggéey